ñëpp nag kenn ku ne fa nga nekk yaa ngi xool noo fay tegee sa business bu bopp te business bi nag lu dugg sa poos rek lu wàññeeku la ci wàllu li waroon defar hôpital bi wala tali yi wala làmp yi wala école yi góom boobu bokk na ci góom yi gën a rëy ci administration Sénégal te bokk na ci suñuy priorité su dañu ne dañu bëgg a defaraat administration bu demee noonu nag ñu xam ni. primature moo war a njëkk a joxe exemple bi ndax moom mooy euh, ndeyu administration yëpp moo jiite administration kon loolu nañ ci bàyyi xel euh, yooyu exigence la moo tax am na lu ci jot a xew lu tuuti fii gis ngeen niñ ko doxalee te noonu lañ koy continuer primature boobu nga xam ne war na jouer rôle bi ma wax nii gannaaw doxal mbir yi te bientôt ci weer wi ni ma ko waxe woon depuis sama génn bi ma génnoon Grand Théâtre ni fii ak septembre dinañu présenter Sénégalais yi référentiel bu bees bi incha allah noonu lay demee buñ ko xasee ba génne te du liggéey bu ndaw de ndax gis-gis la boo xam ne tëgguñu ko ci benn weer walla ci benn at wala ci juróomi at réew lu koy soppi lu ñuy liggéey la teg ko ci xam-xam teg ko ci méthode teg ko ci application teg ko ci rigueur ci ay at yi at moo tax boo xoolee juróomi at yi njëkk yi redressement lañ ko tuddee ndax boo fekkee kër goo xam ne fondation yi nërmeelu na nga ñëw ole nga defaraat fondation yi nga ñëw rek teg ay briques boo moytul doo gaaw doo gaaw am brique doo gaaw am kër moo tax redressement phase boobu dafa di bu am solo loolu noonu nag dañu xam ni bu dee téeméer juróom-ñett fukk yi primature moo ko war a doxal moo ko war a doxal j'insiste pour que chacun fii ci ñi fi nekk xam lan mooy suñu responsabilité responsabilité bu rëy rëy la kon ci ndaje bi mënuma woon ñàkk insister ci yi nga xam ni man farata la ci man yooyu mooy njëkk a nekk farate ci man may daral seen xel nag nii gannaaw bi ma delloo euh, gërëmaat son excellence le président Bassirou Diomaye Faye ci kóolute bi mu am ci ñun ba jox ñu primature waaye kóolute bi mu am ci ñun ba jël lengay nañu lii laay xaar ci yéen bañ na ba daf ma ne décret bi war a organiser primature maa ngi koy xaar xoolal noo ko bëgg a doxale ba ñuy def décret de répartition service daf ma ne seetal lan nga bëgg ci ay service yoo xam ne war naa indispensable ci primature nga wax ma ni lii ak léegi lii laa bëgg ma ne ko man service civique bi rek laa bëgg ak bos yooyu bu ñëwee rek par rapport ak fi ñu bëgg a jëm mbir mi presque mat na kon di ko gërëm ci confiance boobu ak ci cër bi mu ñu jox su ma ko joxee man jox na ko waa primature yëpp ndax président bu dooleel premier ministre am dafa dooleel primature bi yëpp di ko ci gërëm moo tax may dalal xel ñi fi nekk ñëpp xam naa ne seen xel ñàkkuta dal sax waaye di di wax Sénégal yëpp nii ñooñu di balli balli di tëbëki dal ndax xam nañ ni mbir mi jeex na ba tax ñoo leen def course contre la montée dañuy daaneel gouvernement duñu daaneel lu toll ni tarfata ayin motion de censure ci boppam moo dul am fii Sénégal loolu ma wax ko te teg ko fu leer te ci tey balaa bés bi di jeex di ngeen gis li tax ma wax ko am na ñoo xam ne dañoo jàpp ni àdduna yëpp politique la te bu ñu gisee fi ñu jaar ak ñoom ba si fii war na ñoo xam ni ñoom mënuñu politique ndax suñ ko mënoon lii di om noonu nag lañu fas yéene continuer ñoom te noonu la ñu fas yéene doxale ci li jëm ci. aar alalu réew mi ci bépp fànn delloo si alalu réew mi ndax ñi nërmel réew mi gasal ko kàmb dul jeex jël ay milliards yi dugal seen poos lii ñu génn ci réew mi te xam nañ fi ñu ko jaarale ñoom ñëpp nag ma wax leen ko bis ki tey suñu tekk kaaral bi boobu ba léegi wax naa ko ñaari yoon wala ñetti yoon du woon faiblesse dañoo bëggoon li ñuy liggéey ñu teg ko ci méthode ba dossier bu ñu yëkkati rek laam-laame du am waaye comme gis nañ ni ñoo ngi commencé di daw am na déjà ñeent wala juróom yu génn ñi ngi Dubaï ñu ngi Canada moo tax ñu jël ay mesures conservatoires ndax ku ci dem du dellu si ndax xam nañ li ñu def ñoom ba tey jii ñu mën a toog ci réew mi xaar seen wàll ci war a ñëw jàkkaarloog euh, yoon pour layoo ko te du am benn dossier bu ñuy monte nag dossier yu leer nañ lay doon. loolu nag waratul am ci réew mi su ma koy wax fii dama bëgg a joxe exemple niñ ko bañee ci ñoom ñooñu ak li ñu def noonu lañ koy bañee ci ci suñu euh, régime kenn ku nekk ci yéen li mu am bëri na tuuti na li mooy wër wërsëgam na ko sante yàlla te kën a continue di góorgóorlu xam ni yàlla waxul kenn dara ni ko xale di waxe nit commencé na ci cinquante mille francs mujjee ci ay millions lépp te te jaayul ngoram jëlul lu moomut loolu dafa am solo continuer di liggéey yem ci li nga moom bañ a dugg ci loo xam ne moom loo ko te kenn ku ne ci yéen dafa am obligation loolu tam ma wax ko tey agent bu xa bu gisoon premier ministre muy def lu lul yoon wala mu jël lu mu warul jël yoon la farata la mu dem dénoncé ko loolu ay texte la yu nekk ci suñu loi nekk ci suñu cadre communautaire obligation la parce que fonctionnaire yu bëri dañuy gisatul yoon mais dañ naan sama yoon newu ci warumaa wax mais loolu dafa mel ni presque complicité la donc kenn ku ne bu gisee lu jaaduwul daf ko war a dénoncer parce que ay nit bokk liggéey kii ne man maa ngi muñ parce que dama gëm yàlla te bëgguma yóbbu sama kër lu lewut takk biiram keneen ne man damaa yàkkamti il me faut des millions ñu toog di ko seetaan loolu bokk na ci li yàq réew mi kon loolu it ma insisté soo gisee président de la république bi mu toogee li mu njëkk a wax mooy dinañu teg benn projet de loi pour gën protéger les lanceurs d'alerte loolu dafa am solo pour gën a protéger ñi nga xam ne gis nañu dul yoon ñu dénoncé ko am na ay réew yoo xam ne boo doonee lanceur d'alerte dañ lay fay dañ lay jox xaalis ngir loolu ba ci États-Unis am na fa yow mi signalé benn kaa ñu càmbar gis ni kaa bi am na dañ lay jox xaalis yow donc loolu day tax ñu gën a dëgëral li nga xam ne moom la ñuy tuddee la lutte contre la corruption moo tax beneen aspe bi mooy sakkanal sakkanal nag du affaire euh, ngeen jégal ma ci ten bi wala kaana waaw du loolu sakkanal mooy lii alalu réew mi la doole bariwul même réew yu am doole réew yu am doole tey boo demee si si ñoom lii ngay fekk suñuy administration amu fa réew yu am doole annoncé nañ temps leen nañ def une centrale d'achat pour centraliser lépp loo xam ne ay achat public la ndax réew moo xam ne direction bu nekk direction générale bu nekk ku nekk yaa ngi yor sa budget léeg am say nit di passer say marché ñuy surfacturer lu waroon jar téeméer ñu jëndee ko euh, junni loolu mënul wéy mais loolu bi ma ko annoncé ba pare demal France moo fa am France kay moo ñu gën a développé foofu ëpp ñu moins mais France centralisation des achats publics moo fa am Allemagne moo fa am feneen ak feneen bu ñu nee nañu rationnel te li may wax nii bu ñu ko dajale yëpp li ñu war a def ci économie ay milliards la est ku taxaw fële bëgg a def politique rek naan waaw euh, ay ay détails la ñuy toppatoo ay machine li ñuy jënd ci imprimante te at wu ne presque ñu remplacer ko ñu changer ko boo centraliser woon niveau bi yëpp nga def benn imprimante ñaata nga économiser ci ay millions boo ko defee à sur l' ensemble de administration c' est des milliards qu'on va économiser la réduction du train de vie de l' État farata la ci ñun ndax réew yi ñu ëpp doole fuuf da ngay xool les pays scandinaves ñu ñu ëpp doole fuuf ay Suède ay Écosse ay ñoom seen Norvège mais dañuy jënd quelques auto teg ci digg bi ci digg service bi ku ñëw liggéey si boo amee mission booy génn nga dem lenn saa ñu ne la xaaral ba ñaar ba ñetti génn chauffeur bi yóbbu ñëpp teg